di wax rek ne tey dañu am contentement ndax ndam moo fi jóge tey ndam loolu nag ndamu défense bi nga xam ne moom lañ doon jooy fan yëpp défense kooku moo ko am ndax fukki avocat juróom benn ñoo jóg tey taxaw nekk ci bureau doyen des taxaw ci kanamam ne ko tey li nga xam ne mooy défense te mooy suñu sacerdoce ñun ñëpp avocat défense boobu tey mooy jël ndam yàlla yàlla def yàlla def effectivement suñu client bi nga xam ne moo ne Ousmane Sonko tey bàyyi na mu dellu këram waaye il faut ñu leeral foofu ñaar ba ñetti mbir mooy dossier yi jeexagul ndax il faut ngeen xam ne liñ ko doon toppee Il dafa bëri yamul si viol bi rek Ousmane Sonko dañ ko doon toppé mbirum trouble à l'ordre public dañ ko doon toppé mbirum manifestation participation à une manifestation non autorisée dañ koy toppé ba tey appel à l'insurrection si fànn boobu ñu leen di wax ne li nga xam ne mooy trouble à l'ordre public boobu ak participation à une manifestation non autorisée topp yi mën nañ jàpp ne dagg na dañ koy liiral charge yi tey ci kanamu juge bi tudduñu ko fa waaye li nga xam ne mooy viol bi mu ngi continuer li nga xam ne viol ak menace de mort li nga xam ne mooy appel à l'insurrection bu leen fàtte ni doyen des juges dafa demander lever mandat d'immunité parlementaire am ñu jàpp ne su dee assemblée nationale fekk na si si loolu ba lever immunité am xëy na xëy na dañuy wax rek tax dara leeruñu mën nañ ko topp si appel à l'insurrection pop waye ñi wax tamit que ne défense amna ndam deug la waye ñi ngi continuer di joy de suñu joy noppeekul ndax dafa am li xew bu ngeen xolé demb procureur dafa jël décision daggal li di garde à vue bi waaye bu ngeen xolé ne ñi nga xam ño fa nekkoon ak Ousmane Sonko dañoo génn ñibbi mom ñu téye ko fa li ko fa téye nak du leneen lu dul mandat d'amener ñuy fàttali ne dëkk bi ñu nekk yoon moo ko prévoir régir mandat d'amener pendant une durée prolongée ba sax yoon dafa ne muy fonctionnaire au fonctionnaire bu muy autorité détenteur de l'autorité publique ku mu mënti de façon arbitraire yoon dina dal ca kaw donc loolu dañ koy continuer di jooy ndax suñu client ko fa anam solo solo moy suñu client ñibbi na tey ndax nag gannaaw gannaaw ay jàmm donc dañuy wo tamit li nga xamne moy population bi bu leen remercier bu paré ndax nak bu kenn nak nek fi di réere mbir li fi xew ni lepp population bi la mom lañuy ñuy ñukal mom lañuy remercier mom lañuy féliciter waaye dañuy ñaan en tant que citoyen tamit ñu appelé ñëpp au calme li ñu war ñun en tant que défenseur dinañ ko def ba mu mët sëkk duñ ci bàyyi dara li war suñu client tamit en tant que citoyen dina ko tamit ba mu mët sëkk